اكتب لمن أحب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم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 ñoo ngi sant bu baax yàlla tey julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey fàttaliku xew-xew bu mag a mag bu amoon ca koy ànd ak sunu mbokk yi di waa al ñoo ngi ndokkeelaat al xadimiya bu baax muy site internet bi muy lépp rek lu aju ci ñoom groupe presse bi di al xadimiya ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax fu ñu bëgg a àgg ñu àgg fa bu déwénee ñu am seen télévision boo xamante ni day jàll fépp nag ci àdduna si nga xam ne foo waay toll di ko di ko di ko seetaan ndax kat lii am na solo ca gis naa ne jotaay bii rek waxuma la yi ci des waaye jotaay bii rek ñu ngi koy bëgg a def at yu bari ci ñoom ci seen i la bokk yu am solo kon ñoo ngi koy ñoo ngi ñaanal ñi ci nekk ñëpp li ñu fàttaliku mooy wërdu maaxuus wërdu maaxuus lu am solo loo xam ne yàlla moo ñu ko jagleel ñun taalibe Serigne Touba ku ne xam na ne Serigne Touba. bam sosoy yoonu murit yàgg na ca Mbàkke Kajoor ku ne xam na ne daana jëfandikoo wérdu yu bari ci wérdu kilifa yi fi nekkoon Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani jaare koon ci sanadul kunti eh, ak yeneen wérdu yi gënoon na yi fi nekkoon yëpp Chaadili Tijaani ba ci sax danga dégg wérdu yu bare bari bu ci nekk rek jëfandikoo woon ko ab diggante ci jamono nga xam ne njëlbeen ga da doon yar nit ñi di leen tarbiya waaye nag wirdu wum jagoo woon moom amutoon wirdu yu mag yi fi fekkoon rek waaye ku ne xam na ne ginnaaw bi yàlla jagleel na ko wirdu boppam ci Mauritanie ca Sarsara ci jamono joo xam ne soriwut jamono ji ñu toll suba la juróomi fani kori ci la ko sëñ tubaa génne woon comme ni nga xam ne noonu la ko waykat bu mag boobee waxoon rek Ahmad ibnul Xasan ba muy euh, xaamisa shawwaala shahidna karama muxriju za taarixi taajul kurama Ahmad ibnul Xasan bokk na ci ñi liggéeyal wér du maaxus suñu mbokk murtanee la bu jaayante woon ak Sëriñ Tuuba bokk ci ñi njëkk jaayanteek moom foofa ca Murtani bind nay ne sañ toxale ko ci njabootam ne moom la sëñ bi njëkk jox wérdu wi xam naa li ko sëñ bi njëkk jox tax na ba am ci jagle tax na ba mu liggéeyal wérdu bu baax a baax euh, taalif na ci sëñ bi lu bare bari jaar jaari sëñ jaar taalif na ci sëñ bi waaye nag taalif na ci wérdu wi dalilu man raama dalil an wérdi cheikhinal jalil wax na ci sëñ Tuubaa wérdu wi fan la ko jëlee dem na ba naan wa kullu zaabi ardi gannaara wax nañu it ne façon wérdi yi am xafiif kaamil ak yépp lijal imaamu an imaami saqalayn an wirdihi an rabbihi wirdun ala kayfiyatayn wax na kañ la ko génne abrazahu yowmul aruba yowmul arubati liman ashhadahu llahu min min abnaai zaman xaamisa shawal shahid naa karama wax wala na ne sëñ bi donte ci mujj koor gi lañ ko ko jox waaye bi mu koy génne mooy juróomi fani kori gi lu yéemu nag am na ci ren alhamdulilah juróomi fani kori gi ajjuma la dajaloon ndax nee na yowmul aruba yowmul aruba mooy ajjuma ren jii dafa mel ne juróomi fani kore gi ak jagle amaat na ci ajjuma lay dajal kon anniversaire wird wi ngeen di fàttaliku yéen waa alxadim yi alhamdulilah mel na jagle yi leen ci yàlla jox ren bari na wird woowu di lu am solo bokk ci sëriñ bi nga xam ne yàlla moo ko jox sëriñ Touba mu andil ñu ko moo tax nag li ñuy wax kon li sëñ bi wax rek digal na ñi aju ci moom ci ay góor wal mutaalliqaati ak ñi aju ci moom ci ay jigéen ñu di ko jëfandikoo kon nañ ñi def wird wi nii ñu amee fulla bay def suñ doge alxuraan yi amee ne fulla ba koo ci gis am na dogub xasida boo xam ne dana koy def xasida boo xam ne mënu ko ñàkk nañ góorgóorlu nag nag kat bay def wird wi it ca xam ne it nag ndigalul sëriñ bi la ca comme sëñ bi ci lañ jokk moom lañ doxale def ko suñu sëriñ teg ko ci suñ kanam lépp lu yokk ak jokkoo moom war nañ koy def te ko ne xam ne ne wird wi am na ci doole loolu am na ci solo ndax mooy li nga xamante ni mooy wird wi nga xam ne jëlewu ko ci benn cheikh ci yonent bi sala ci yàlla la jóge jaar ci yonent bi mu jox ko ko yàqasatan foofu ci sarsaara comme ni ngeen ko waxee sëñ Tuubaa diggee ci lu bari doy na sëkk nee na képp koo xamante ni yaa ngi jëfandikoo wérdu yi da nga nekk mu'min muslim muhsin mooy da nga nekk jullit bu mat sëkk waxaat nañu ne it ne ci foo xam da ko way li man axasa wirdi yaa karim mustaamilan bihi sawaban laa yarim yow yàlla yàlla na nga may képp koo xamante ni yaa ngi jëfandikoo sama werdu yi di ko jëfandikoo yiw woo xamante ni yemut fenn dañ ne daana waxit ne ba mu koy doog a génne ci li ko ala ala yi nettalee ci téereem boobu nafaxatul miskiya dana sëñ bi boobu da leen dajale ne leen wax wax werdu yi ni ko yàlla joxe wane ne ku yoroon waneen werdu ca mën ko boole baax na leer la ci kaw leer waaye nag képp koo xamante ni mënoo koo boole nag da nga yem ci sama ca loolu ku ne xam na ne loolu xamees na ko ndax nag comme sëñ bi mooy suñu sëriñ nag ci aw wérdam ci lañ war a yem ñun ñi nga xam ne ñoo ay taalibeem kon nag loolu loo ciy déggee mooy kon bu àggoon ci boole koog leneen mënta ñàkk bàyyi leneen la ci jëfandikoo ko loolu sëñ Alaalawi moo ko nettali Mouhamadou Ndox Ubayda Rahman ci nee na sëñ bi moo leen ci gànnaar ngëneel yi bari na lool nit ki jullit la war a doon la doon te wirdu wi na ci liy mottali dana dox diggante nit ki def bàkkaar loolu solo naa ko ci ñu bare bari ci loolu mu jarab la bokk na ci wir njariñul wir di sëñ bi nee na ku koy def danga nga texe texe goo xam ne doo texee di ginnaawam Cheikh Amadou Bachir doomi Sëriñ Touba jooju nga xam ne ni ko ñenn ñi melale ashabihu bi xarfat da ko niru lool te loolu ku ne xam na ko taalif na ci wirdu wi ngir di ci ñi nit ñi comme noonu ko Ahmad ibnul Hasan defee xasida gudd gudd mi ngi tàmbale ci yaaraa imal kamaali fi saada min turqil mashaayix salaasa maanaam way yoo xam ne maanaam mi daal bëgg naa woon ne yow mi bëgg ak kamaal ak mat texe yow mi bëgg a jariñoo yooni sunu sëriñ su tedd soosee Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Idi Ahmad Tijani Cheikh Abul Hasan Chadili na nga xam ne boo jëfandikoo werdu sëriñ Tuubaa wi yor nga sekkare werdu yooyu mooy werdu sëriñ Tuubaa wi daal kon njariñ li nekk ci werdu aqtaab yi mag ñi jiitu woon mi ngi ci werdu sëriñ Tuubaa wi te bokk na ci li lay tegtale loolu mooy sëriñ Tuubaa werdu yooyu bu ci nekk jëfandikoo na ko moo tax da gis mu dem ba ci biir naan fa jamaal mooy mooy mooy mooy sëñ Tuubaa boole na wér di yëpp wazaada wartaqa bi muxkamil kitaabi nicma murtaqa fa in axasta wirdahu axasta wirdal jamii laa taxaafu kapta kon loolu loolu la wax mooy mal ne daal boo ko jëlee jël nga wirdu yooyu yëpp kon alhamdulilah loolu da nga ci déggee moo taxoon sëñ bi lii gën a tegtale ci rek ne lim yoroon lu boole la loo xamante ni boole na lépp lu baax lu fi nekkoon loolu it ñu ciy am déggin wu rafet ak njàngeen wu rafet mooy li nga xam ne moom la aqtaab yi yoroon li nga xam ne moom la masaayix yi yorit lu wér wér la lu ama am njëriñ la lu am solo la ndax ak am njëriñam tegtale na ci ne sëñ bi ne euh, sëñ ba Cheikh jaar Cheikh Ahmadul Bachir ne euh, euh, ne boo jëfandikoo wér du sëñ bi man la ne nga yor nga yooyu ndax loolu mbaax gum baax ak leer goo xamante ni nekk na ci ñi liggéeyal wërte yu bari na da nga gis Cheikh Ahmadou Lamine Diop Dagana téere boobu ñuy wax Ighnaa'ul Adiim da nga gis it ñeneen ñu baree bari ñoo xamante ni jëfandikoo nañ ko da gis magi murtaniyeen yi ku mel ne Cheikh Sidi Ahmadu Lismahu danay wax ci wérdu lu bari eh, ak nettali ci lu bare bare bare bari daana sonn lool ci di ko jox ay taalibeem góor ak boo demoon Mauritanie da nga leen fekk ñu ko jëfandikoo am na baat boo xamante ne dégg naa ko ci kenn ci sunu sëriñ Cheikh Baawul Abdallah ne moom daana wax ne Sëñ Tuubaa daana wax ay taalibeem ne leen yéen de lan yatuula sanadukum yéen de am ngeen chance yéen ñi may samay seen sëriñ ndax seen sanat ci wérdu wi day gàtt na lool maay ki nga xam ne maa ko jëlee ci yonente bi mu jóge ci yàlla jaar ci yonent bi ma jox leen ko kon nag seen amu leen sanat bu gudd sanat boo xam ne da naan benn rek ne ñaar euh, maa ngi dégg xissa bu yéemu boo xam ne ci doom yi ki ko daan wax ci laa ko déggee Cheikh Maola Aynayn doomi Cheikh Aboubacar euh, Ibn Fatan Cheikh Aboubacar Cheikh la woon bu bokk ci machaayix al qaadiriya yu mag yi euh, jaxasoo nag sëñ Tuubaa loolu bokk na ci ñi ko fekkoon xumaag ba ñëwee bokk na ci ñi sàkk woon sëñ bi mu jox ko wérdam wi di wérdul bi mu ko ko joxee mu ko daan jëfandikoo euh, doomam nee na ma dégg nañu ne doomam jooju baayam ku mosaa ñëw bëgg ci moom wërd di ko laaj wërd danaan la am naa ñaari façon wërd yoo xam ne am naa ko wërd wu gudd ak wërd wu sanat bu gudd wala sanat bu boo ci bëgg ne la sanat bu gàtt bi de mooy bi nga xam ne sëñ Tuubaa ma ko joxoon ca jëlee ko ci yonente bi booba xam nga ne gàtt foofu la mën a yem daan ne nag am naa beneen sanat xam naa mooy wërd xaadir bi nga xam ne dëgg la wér na lool waaye sanat bi gudd na ndax dañ ko jëlee ci moom mu jaare ci baayam ci maamam muy jokkaloo ba mu àgg Cheikh Abdul Xaadir Jelaani ca xam ngeen ne loolu kon dana xaw yàgg tuuti wér di ñu leen di leeral ne am na ci loo xam ne nañ koy bàyyi xel nit lu mu bëgg bëgg lu baax am na ñaari façon jëlin am boo ko jëlee nii di ko def de da nga ci jariñu ndax tudd yàlla la wér di wi génnut fenn alxuraan istigfaar moo ci am ci yàlla moo ñu wax ci alxuraan astaghfiru astaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara tudd yàlla moo ci am wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun tudd yàlla ak yeneen yi nga xam ne moo ci am lépp rek lu ci nekk rek salaatu ala nabi ba tey moo ci nekk inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi a ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kon wirdu wi ay cosaanam yëpp rek luñ xam la alxuraan rek la sunna rek la li borom xam-xam yëpp dëppoo rek la moo tax nag kon ku koy jëfandikoo nii ci amoo ci ndigal yaa ngi koy def da nga am tiyaaba ndax def lu baax nga yaa ngi tudd yàlla yaa ngi def istixfaar waaye nag ku bëgg jël li nga xam ne moo tax ñu naan sirrul wird li nga xam ne mooy mbóot mi li nga xam ne moo tax ñëpp di ci sonn nag na ko jëlee ci cheikh boo xam ne yor nga ko ndax nag wird daa ami condition daa ami charte ahmadu ibnul xasan mi gis naa li ko sëñ bi bindaloon gis naa ko ci doomam ku ñu naan wax taa ndeysaan ku baax a baax net ci làmmiñam sax la ma ko njëkk a nettalee l ijaasa bi mu ko bindaloon daan ne li yaalamal waaqif ala haza al marsum an al abd al xadim siiqa lahu su'lu min al qadim ata muridahu iznan wa isticmaalan ci ba lettre bi jeex kon da ngay xam ne kon ndigal mën mënta ñàkk ndigal loola it nag na nga xam ne ci ku yor wedd yi nga ko mën a jële waaye nag faaqidu shay laa yatihi bu kon nag dee leen moytandiku euh, nit loo ko fonk-fonk it booy jël ci moom wedd bi nag ne la wóor na yor na ko na nga ko laaj ndax ku koy jëfandikoo la am ndax yor na ko ak it nag ndax nag am na jëfandiku ndigalul man koo joxe comme loolu nag bari na moo tax kon loolu dañ koy laabiri rek ñu mel ne man sama mbokki taalibe bi jëlee ko ci ku ko yor yor ko ba noppi am ndigalul di ko joxe loolu nag baax na loolu mooy tax nag dëgg-dëgg nga mën a nekk nga nga mën a yor wird wi dëgg-dëgg ci ay sartam sart wird wi xam ngeen ko mooy sart ab jullit dëgg-dëgg rek jàng laab jàng alxuraan euh, sell di jàng alxuraan loo man di julli julli mbooloo bàyyi bakkaar yi euh, res topp sa sëriñ bi sëriñ bi nga nekk ni ko doon say waajur ak yu mel noonu nag sart moom mooy sart yi tax ab nga nekk ab jullit piir rek loolu moom yàllaa ñu ko digaloon mooy sart wird wi kon nag baax na it balaa nit a jël wirdu wi sëriñ bi la koy jox na ko wax ne ko na la ko sa bu la ko saa ba noppi na la leeral sart yi nag ndax nga tënkut sart yi nag baax na sart yi nag ngeen xam ne jafewut am waxtu nañ koy jëfandikoo ca sàmmonteeg waxtu yi muy waxtu yi ko war def suba gi ak waxtu yi def ngoon gi suba gi boo julee suba ba noppi ba jant bi fenk mooy mooy muxtaar mi daroor ji mën ko def ci li bi ngoon gi ginnaaw boo julee takkusaan ba noppi borom suñ borom xam-xami tarixa bi nag bind nañ ne di baax na it nit ki di ko def nit ki bu ko neexee mën na ko def ci njël gu njëkk saxaar mooy njëkk ñuy noddu fajar loolu nag dana dana dana arrangé lool sama classe gi nga xam ne ay doxkat lañ léeg-léegi ca waxtu woowu mën na fekk nga nga nga ngay yeewu ak yu mel noonu kon daal am na ay ay ay rox sayit yoo xamante ne am na ci biir nañu moytandiku di ko def di wax euh, lu yéemu nag toog naa ci jotaayu nit ku ma xaw a miin ku may kaleel di ko tooñ gis naa ko muy wërd ma euh, ñu wax ak moom tontuwut waaye gis naa ni surtout ma gis ko muy naan café waaye dama ko reeba sonn quoi lii di kiimaan naan wax di yàq ci naan kafe ci lekk ak naan du ko yàq di xoromu waaye damaa jàpp ne bi ñu bi ma ci waxtaan ak moom ba noppi xam naa rek réeróo moo ci amoon ak it léeréwu ko woon noonu waaye noonu la diine moom nasiha la rek kon ngeen xam ne deesu ci wax boo koy def loolu dar a ju mënta ñàkk rek wala say sëriñ wala wala say waajur wala yu mel ne lu mënta ñàkk te it nag boo bu fekkee dar war la janeen ju bokkut ak ñooñu ci setee nag da ngay da nga tàmbaliwaat loo gën a mën a tënku charte yi jublu xibla Euh, ànd ak wegu nekk foo xamante ne coow du fa bari dal loolu moo ci gën loolu lañ koy bàyyi xel bu baax a baax di ko def bu baax moo xam góor la moo xam jigéen la liñ ci yokk tuuti rek mooy bu dee jigéen la ngeen xam ne wérde yi cosaan la luñ sopp la du du loo xamante ni ku ko defut doo doo doo ab jullit wala yu mel noonu wala doo ab sunni wala yooyu déedéet comme nag luñ sopp la nañ ko da ngay day jigéen bu ko mënta ñàkk def na xool ne comme bu doon koor-kooru ngatt nga lu mu coobarewu rek la na dem waxtaan ceeg borom këram nag ba mu nangu ko ndax am na ak ci moom ca man naa am diggante bi muy jël wérdu wi wala bu koy def loolu mën na cee waral ak gàllankooram ci borom këram ak yooyu moo tax kon nag na ko ci laaj ndigal ba jox ko ci ndigal mu doog a dem xooli ku mu ko jële ci moom bu dee sëriñam bu borom këram boobu am na ko baax na bu ko amutit mu dem jëlee ko ci keneen siixa yi bari na yëpp ci sëñ bi la jógee muy xafiif bi ñu bari di jëfandikoo muy ak mal bi ngay dégg muy kaamil yi nga ci dégg yëpp rek loolu ba tey bokk na ci jagley wérdu sëñ bi mooy siixa yu wute yi mooy dafa mel ne daal man li ma koy jàngatee sama xel mu gàtt bëgg na kenn bañ koo bàyyi moo tax ku ci nekk rek wutal na loo tollool ñii xafif lañ tollool ñii kaamil ñii beneen nañ tollool ba ci ñenn ñu kii ñi sax nga xam ne mënaguñu àgg ci jël wërd wi wërdal bi nga xamante ni moom xam nga gàtt na lool te sax yenn mag ñi ko def di ko booleeg wërd maaxuus wii moom lañ xam waaye a bëri suñ ko daan def jamono yooyu bu fekkee da ngaa yoroo maaxuus ñoom diggante tisbaar takkusaan nañ ko daan def waaye loolu ne day mel ne ba kenn kon daal xéewal la yiw la tiyaaba la ju bëree bëri nañ ko fonk ci di ko jëfandikoo ci charte yi bu kenn lay ne charte yi mënta daje ci man dégg naa Cheikh Sidi Ahmadou Lismuhu ko wax bokk mosaax mu ne la yow kon yow la wérdu yu baax ci ndax da nga war a def ndax nga matal charte yi ndax charte yi lu mënta ñàkk ñoo ngi ñaan bu a baax yàlla jëriñ murid yi bu baax a baax ci wérdu bi lii nga xam ne ab Cheikh Mahamadul Muntaxa defoon na ko ci lu yàggul dara yeesalaat ko jox ci ndigal ci kilifa yi jiitoon yëpp daan ko def la tàmbalee ci xalifa sëñ Tuubaa yëpp la tàmbalee ci magam yëpp yi fi nekkoon ndax mag ñi yoroon nañ ko fonk nañ ko bu baax a baax sunu maam sëñ bu Buso xam ngeen ne macha allah taala ci ñi ko jiite woon ci ñi ko daan joxe bokk daa nga dégg ba ne sëñ Saaliwu ci moom ko jëlee woon ak mag ñëpp man mii bokk na ci ñi ma ko jëlee sama sëriñ Cheikh Amadou Mourtada di ko doon ba tey Cheikh gis ngeen ni ko fonke woon daan ko joxe daan ko jaarale ci suñ suñ bàyyi sëñ Jili Gànnaar ak ak xam naa ci lu bare bare sama mbokk mu baax sëñ Mamor Sey waxtaan nañ ci lu bare bare ñoroon na ko lool lool lool lool xam ngeen ne léppam ngëneel la doy na sëkk ngëneel la Serigne Touba magam Mamor jaara xam ngeen ne kilifa la woon ci tarixal xaadiriya ndax tarixal xaadiriya moo fi nekkoon ñëpp moom lañ doon jëfandikoo bu njëkk suñu wërdu wi waaye xam ngeen ne Mamor Diarra daana mujj di wërdul maa xusalaan jëfandikoo li koy tegtale Serigne Touba radiyallahu taala anhu dañ ne bi mu jotee ci wërdu wi yónnee woon na ko Mamor Diarra nusxa boo xam ne kenn suñuy waajur sax daanañ wax ne mi ngi ak moom cosaan loolu ba léegi daana ko wax ba ba nga xam ne mi ngi ak moom eh, dañ ne it li lay xamale mag ñi ñor gu leen wërdu ñoroon tax na ba Mamor Diarra sëñ Mbàkke Bousso mos naa jëm gànnaar ci di seeti sëñ bi Mamor Diarra yóbbante woon ko ci bi ne ko wérdu wi ma yónnee woon de gis naa ko waaye dama cee gis yeneen nusxa yu wuuteeg loola ne ko nag na ma leeral loolu nu mu demee xam ngeen ne loolu kon ñëpp a yittewoo woon wérdu waaye mag ñëpp goon yittewoo Mamor Diarra xam ngeen ne loolu kiimaan ak yittewoo la euh, kon ñëpp rek sëñ Mad Lamin Gay ba ci njabootu sëñ Tuubaa ak Cheikh Abdoul Bachir ak ñooñu ma tudd mag ñëpp rek ba ci suñ mag ñu yàggut ñi ñëpp rek ñoo fokkoon nañ ko daan nañ ko def bu baax a baax muy góor muy jigéen kon nag amul ngànt na ci ñëpp jëm fastabiqu ilal xayraat wahab liman axasa wirdi yaa karim bi bihi sawaban laa yarim yaa rabbi ijaalil na maa fi xisnika alxasini wa shamlaj maa ñoo ngi santaat bu baax alxadimiya ci leen di xamal ne seen taxawaay yi rafet na lool lii dëgg dëgg de tur wi ngeen tudd seen bopp mooy alxadimiya yayoo ngeen ko ndax doy na sëkk ngeen yayoo ko mooy fexe ngeen ba aju ci alxadim lépp ngeen di ko saytu di ci sonn bu yàggut waxtaan nañ ci laytul xadri gi tey jii ñi ngi waxtaan ci wérdu wi alhamdulilah waxtaan nañ ci wérdu wi ay ati ati at balaa ëllëg ñuy waxtaane waat ci loo xam ne lu xew ci alxadim gi la ci xadim yi gi la mooy ci bamba ji lool nag alhamdulilah tur de niru borom kon ñoo ngi leen di ndokkeelaat ci loolu di leen ñaanal rek ba fépp fu ab organe presse di àgg yàlla ngeen fa àgg wala yàlla ngeen ko weesu sax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil اكتب لمن أحب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا